xale yi dee ci géej gi te te yëpp maa ko ne nañ leen dëjal xale yi àjjuma fukki fan ak ñett waa nguur gi moom moom silence am bi lan la. te ñu ngi dee te pareeguñu ñu ngi dee te pareeguñu. xanaa Antoine Diome de lii mooy nekk waxam bu njëkk. est-ce que dana ca wax. Antoine Diome de yoruma numéro téléphone sax konoon ma def ko ne Aly Ngouille na ma ko defoon. comme bi mu kiiwee. Aly Ngouille ñoo ko ko jëkkoon waaye Aly Ngouille sax ak lu ko waaye mën a sikkal tamit moom moom moom moom moom. ku ah, leer la woon. waaw léegi-léegi ñu guerre rek xam nga nag. waaw mais bon autorité moom ak taskatu xabaar yi moom. surtout intérieur sax du lu ndaw. waaw waaw waaw ci guerre lañ dëkk waaye nag bon. xam naa ni moom daal moom xam côté politique de moom ñu ngi ko doon sikkal. waaw waaye ñi ànd ak moom day sikkaluñ ko ndax mi ngi doon gagné li guerre. Euh, au moins. waaw. kon Aliou ah, Guèye daan gagné boobu avant Macky di ñëw. ñu nekk naan ay amul base ak ay lii baax na. <laughs> loolu loolu loolu loolu. Euh, ah, biti la fanaan ba gars yi def locales yi kay soriwul. waa na ah, waaw waaw Macky Sall du organiser locales yi monsieur le maire. ah non euh, du génn du génn deux mille vingt et un lañ wax. waaw mais du génn deux mille vingt et un te Macky moom def ay manœuvres politiques am mel ni ku fàtte élection yi. ah du ko fàtte. dialogue national bi te mu fàtte ko. waaw ah, Macky mii moom waa Macky waaw mais Macky Sall kan moo ñuy dimbali wax ak moom. doo ko woo. kan woo ko. moom madame Fall mu ngi lay nuyu. bu RCD. Benno Bokk Yaakaar la bokk man du ma wax ak waa Benno Bokk Yaakaar. Aïda Ndiongue nañ ko fay xaalisam nag monsieur le maire. <laughs> ajaratu Aïda Ndiongue wax dëgg de mille milliards ak ko ba pàtt. mais Aïda waa waa mais Aïda Ndiongue moom. waa moom ba defee day waaj kii parti. waa waa mais Aïda Ndiongue moom lan lan mooy problème mu moom nguur gi moom. ba ba jox ko xaalisam. waa mais Aïda Ndiongue lan mooy problème mu nguur gi. ah est-ce que joxuñu ko ko. ba léegi jox fa ba léegi dara. yàlla baax na ajaratu la Aïcha Fall maa ngi koy nuyu. kofem walla Issa Fall de moom duggee ca sëy ba ba léegi xanaa leen bàyyi ah bàyyi acca ah, yow kooku HLM ba léegi moo ko téye li mu fay def temps yi ah monsieur le maire kon di la raw bari na de HLM day di la raw bari na pour lan la nii di la raw bari na bari naa mu ko de ah, di nuyu góor est-ce que du ma est-ce que du ma génn ci staff bi nga ne HLM il faut mu wut fa beneen candidat candidat fan HLM H&M, ñoom ñëpp moom la ñu àndal laa lay sa Fall laaj ko Bamba Fall bu Médina koy wala ma jox ko kii laaj ko monsieur le maire bu Medina Bamba Fall. Bamba Fall moom mooy borom Medina moom. kooku ah, waaw loolu moom biti la fanaan kooku moom biti la fanaan Bamba Fall moom yëfam la. Bamba Fall kay fépp Bamba partout Bamba everywhere. li ma naqar rek mooy mooy Macky Sall punkal mi dinañ demate local. Bamba mhm. gañewaat mu defati leen ko. ak ñoo bëri ay punkal sa Medina nag. <laughs> ay ministre xii ay PCA xam ay directeur waaye daal dana metti de. politique nekkul tur de. Ah. ay man amee ay dara damay génne télé ak rajo rek. Ah, non non non non. diggante diggante amee ay dara bi génn ci tele bi. Mhm. ak di wax ci rajo bi. du benn. ak bële ca koñ ba du benn de. dëkk ba dëkk ba wàcc sur le terrain dugg ci bi waaye foo naan man ay SR la léegi léeg gis nga Youssou Ndour jafe-jafe yi muy dund Medina ci wàllum élection gis nga ko. metti gis nga ko. Mhm. te pourtant wàllum way moom. Kee boo laaj ko maam wala mooy bàyyi gone waaye. Kee boo laaj ko maam mooy maamu gone. ba ka ci fekk boole la maam wàcc. termine yéen kaay monsieur le maire ñëw ñun ci. lu mu wax beneen musiba mbaa bokku mbaa ngi nii. kenn kenn kenn kenn xamul lii la le scandale de salaat nañ signature yi nga xam nañ koo signé ak union européenne. gis nga nappkat yi ñëpp jël nañ géej gi di dem. tey jën amatul di dee di dee. sa mbokk lébu jox autorisation ndigal européen yi ñuy napp ci suñu géej gi lu tolloog juróom fukki junni ci ay tonnes. Mm-hmm. cinquante mille tonnes la wax. cinquante mille. juróomi at nag. juróomi at waaye ministre Alioune Ndoye li xees da ko weddi. cey nee na amul wenn signataire bu bees woo xam ne am na ca. yow yaa ngi xool li mu bind tey. fu yaa yi nag. union européenne dana day day moodu moodu yëpp nañ leen indi. yi amul kayit. mu ne. moodu moodu yi amul kayit. dañ leen andi. Eh, rapatrié. union européenne loolu la bëgg. léegi nii. etim duñ ko waxtaanee rek xool. waa mais xanaa ñoom MD ñoom dañoo génn ci résu ba. MD. <laughs> dégg nga xoolal ñu amul kayit. bu ko ko jàppee dégg ak lu ëpp fanweer ak juróom-ñeent ci ay milliards. Hmm. yoo xam ne ñoom lañ jaglelee Sénégal ak Côte d'Ivoire. pour ñu delloo leen seen i doom. ci yàlla. jox leen yóbbal jox leen sëriñ ca. Ah. les écoles yéene kaa ñëw ñu hmm. ci. ñi nga xam ne dañ ne ay julit lañ ba pare te dañ koy taral ba mu tar. Hmm. extrémistes yi. ba mu tàng. waaw Macky Sall dal na seen kaw de. mu ne Macky Sall dal na seen kaw de. lu mu leen wax non président Macky Sall li mu xam ne démb France que forum de la à Paris nee na xam nga nga dugg ci jumaa wala église fekk fa ay nit jël bomb ne da nga leen di rey mais ñooñu mën nañ leen tuddee lu ne ba mu des islaam mm-hmm. dëgg la loolu dëgg. Mm-hmm. dégg nga waaw kay gis nga délégué général à la statistique. Mm. ak analyse données réew mi parti réew mi Mawar Cissé. dama wax. waa ji jóge na ci Idrissa Seck de. waaw dem na ca Ousmane Sonko. bàyyi na Idrissa Seck. yàgg na. waaye lu ko dese. Ah, conseil économique. <laughs> Ah, boobu mën a toog te dégg naa bi dañ ko teel a téye. Ah, jeex la ko daal teel na na xam kon moo ko dese. man naa la xaw man nag li may xoolal man dama ay xarit dama ay xarit réew te man ak ñoom dañuy ànd. àndee ci mi ngi ci réew mi ba léegi. suñ koñ ñoom foofu ay réew mi <laughs> bàyyi nduur bari. réew mi Yoro Seck. réew mi. Euh, Bas Dieng. réew mi. Moussa Thiombane. réew mi. ak bu Gunaas. ci réew mi. waaw ñooñu dañ bàyyi réew mi dem ci quartier bi. te ñooñu ñu ñoo bokk koñ. dañ <coughs> bàyyi réew mi tey ci koñ bi. moo tax man boo seetloo <laughs> bu dul revue de presse bi du ma ko wax dara lu ko neex na def <laughs> ndax nit da nga koy rusee nit ndax nit ndax ñooñ sax ah. waa na gàkku. source a ñëw ñu ci. ah du ma laaj Malick Gakou <laughs> muy waa koñ ba waaw ba tey baax na source a lu mu wax. bàyyi leen ñu bàyyi leen ñu baax na dégg accord yaa ngi nii ndekete ñii signé woon nañ dëpp le 22 nag. Mhm. pendant délai bi 22 octobre. d' accord nañoo fay ñetti weer yi nga xam ne moom la école privée di wax waaye ñu defal leen ko moratoire. ah moratoire. ah ma tam mën na. baykat bi de yamba la doon bay ndekete bi. yamba. te doon ca biir kër gi ñu jàpp ko de. fan la ko doon béyee. <laughs> lii quotidien ñëw ak ñun ci. Mhm. waa lii lan la nii. loolu ci kër gi la ci biti. ah. sereen bi la ci kër gi la. de kër gi la lu muy daan xaafu. en tout cas ubbite l'école ren bii dana bëri ay problème de. ubbite ubbite jàng tey. waaw yee ubbite jàng tey fan. <laughs> problème bu kese. évidence seen i kaa ñëw ñun ci Ablaye Xuma. Mhm. responsable la APR la Kaolack. nee na ngir njariñu réew mi. Mm. ngir njariñu réew mi Idriss Seck dañ ko war a respecté. ba pare encouragé ko. Ablaye Khouma Ablaye Sow loolu la wax. waaw Ablaye. Mm-hmm. Ablaye Khouma doo Ablaye Sow de. Ah. libération ñëwal ñun ci monsieur le maire. ci ñi dee ci géej gi. Mm-hmm. waa li xew ci kër gi mbaa jàmm na. man kay alerte boobu laa xamul lu mu ah, doon. dégg nga loolu. Mm-hmm. xam nga journal bi nee na. dañ ne ñàkk liggéey. moom la ñuy tuumaal nguur gi dëgg laa du dëgg. Mhm. ñuy tuumaal nguur gi ñàkkub liggéey lay tuumaal nguur gi tax na xale yi di dem géej. jël mhm. gaal waaye góor goo xam ne dafa jël doomam. fukki at ak kenn mës a gis lii ko deux cent cinquante mille. naka demat ngir mu dem. waa loolu ci nguuru man. tey journal bi nag limal nañu ñu bëree bëri ñoo xam ne kon dañoo mujj dee. Mm. la akbar. tey. le quotidien yéen a kaay Eh, ñi ñii dañuy triander état au Sénégal di ko dóor martu waaw parce que benn rapport la ñu génnee te ñooñu dañu tuumaal EPAGE bi boobu laaj ma lan lay def day yokk ay charge ngir wàññi bénéfice su état mm-hmm. kooku nag Macky la neex tey te loolu yëpp moom yëg na ko président de la république a ngi nii taxaw ak mm-hmm. France Macky Sall li mu wax ñoom Macron leen rek la li nga xam ne bokkuñ ko mën nañoo bañ a bokk ay valeur Mm-hmm. maanaam ay jikko ak yarin dégg mm-hmm. waaye ko ci nekk mën naa dund yonent bi daan na dund ak ñoo xam ne bokkul woon ak ñoom diine ok ah, loolu kay nañ nangu suñuy différence ah, respecté sa diine député te respecté diine pour wàllum inondation fu ñu ci toll defar na rapport de trois cent quarante quatre pages xaalis ah. xaalis bi yëpp nee nañu Ndakaaru Njaay jël Jóob moo ko lekk si si kii bi inondation yi xaalis bi presque presque presque presque presque xoolal joxuñu ñu kenn du benn responsabilité dara dara. waxuñu fi dara lu leer. waaye yow ma ne. 344 directeur généraux yi nag bu yeboo ñu waaj. ah ay ca. ginnaaw ministre yi. Hmm. critique nee na bu yeboo ñu waaj de. vox populi ñëw ngeen ci président Macky Sall ngi nii. fu mu toll. ah mooy li hmm. léegi nii rek. ngi nii. Hmm. mi ngi nii daal en tout cas daal Macky daal tontu na waaj yi tontu na ko daal. kon baax na mën nañoo bañ a bokk ay ay valeur yu ni mel. te war nañoo mën a dund. ku nekk respecté la nga gëm. waaw kay waaye Walfadjri ñëw ak ñun ci immigration mm-hmm. clandestine baa ngi nii. Macky sàll moom nangu na carrément ne équipe am bii am nañ ci responsabilité. Mm-hmm. bu rëy. ci lu jëm ci mm-hmm. wàllu politique nag. nee nañ élève moom élève moom romb na bu yàgg yàgg yàgga yàgg yàgg yàgg yàgg. <laughs> Macky Sall moom boo bëggee dégg-dégg romb na ko. direct news nee nañu gis nga Macky. Maodo Diop Decroix xam nga keroog dafa def conférence de presse lan la ci wax du liggéey ak Macky. Decroix loolee la wax. ci pion Macky la bokk. kan ci. Maodo Diop Decroix. Decroix xanaa sañul def bopp croix sañul def croix ci boppam noonu. am na nit ñoo xam ni ñu ngi négocier ak Macky Sall. tapis dans l'ombre. in petto. Hmm. te gis nga Maodo Diop Decroix. ci dispositif bu beesu Macky Sall bi def cee bokk. Alaaji Malick Gakou moom ci xat-xat la ne. fu mu nekk nii day def dafa wuraay. dana dugg ak mbooloo mi ne ko doo dugg. xel maay jaabante fu mu nekk nii. Ah, waaw waaw safax marwa. ci xat-xat woowu la ne. Hmm. Abdoulaye Wade jiital opposition bi. xam nga Mamadou Diop Decroix lan lañ koy doyee. xam nga luñ koy doyee fi mu nekk nii li des ci opposition bi yëpp. Mamadou Diop Decroix liggéey ko tëxañ ko toog ak moom ci côté Abdoulaye Wade. dégg nga lu muy def ci suuf. waaw pour néewal doole Ousmane Sonko. Sonko mi nga xam ne moom moo teree nelaw Macky Sall ak waa këram. loolu moom biti la fanaan. coalition bi gisoo ko xanaa. ubbil journal bi coalition jot na bi gisoo ni mu ne tasar mm-hmm. audience bi Macky Sall dox digganteem ak Boubacar Camara ak yeneen ak yeneen ba Sonko retiré wu ah, ah loolu tam loolu tam c'est que man Macky Sall la waa ji aay na nag Macky Sall man na ni politiquement aay na kan tonton waaye tonton aayul waaye ah, politiquement yow ku liggéey lii ci politique waaye yow ma ne li mu yor ku ko yor aay ah waaye tamit nag màggeti politique yi nekk fi ñoom ñëpp ñoom ñëpp mu waabale leen ah, ma boo yoree appareil état waaye yow yow xoolal yow instant bi ku la ku la neex chaque fin du mois nga jox ko cinquante millions ko déggoo ku la yow président la République chaque weer wu dee nga may ko cent millions déggoo ma ni te léegi ñoom après noonu la ñuy demee ndax ndax koppar ku yor police yoor gendarmerie yor justice yor budget bi yor mm. koppar gi yor réew mi jaww ji yow lañ ko dégg suuf si géej gi tout waaye waaye ma ne xoolal loo ma ne loo yootu jot ca dégg nga ñu ne awa jig xëy bu la jigee loo yootu jot loo waaye ma ne loolu du ay du ay fo ah man daal xam naa ni daal bi nekkee daal ci opposition bi mën naa koo nangul parce que géré na fexe mais toon mais yenn erreur yi dalu ko nag politique gars yi waaye toon politique du ko ndaw de élève maam Abdoulaye Wade xam naa bokk na ci meilleur élève yi waaye ma ni meilleur élève ya ci politique fii idée ku gënoon a xarañ. te bu xëccee idi teg ci wetam. waaw position am la. idi nangu ko tamit topp ca. fi mu nekk la. ku xëcc ku xëcc Moustapha Niass teg. Aïssata Tall teg. Aminata teg. mu nekk la ay kàngam. kàngam yi la teraanga ji ne. <laughs> Ah, fa mu nekk la mboq gi rek. waaw pour nga yób yóbbu nit dafa yomb di. fa nga yóbbu nit dafa yomb nag monsieur le maire. Ah, ah, loolu kese la ak ña ngay yóbbu. dem benn waaye lañ doon waxal. Hmm. ñu def ak moom émission. mu ne Bougane moo jekk ci demoon wu ji. waaw. chef d'entreprise. jekkoon na si nag. non chef d'entreprise. surtout li tegu sa kaw nga daw impôt yeeg yooyu yëpp daw wuyu ji. Hmm. déggoo ma de. waaye moom ba mu dem ba xam la lay wax télé bi. ba kooku moom. <laughs> lu muy wax waa kër gi kooku moom bu demee. lu muy wax waa Ndar. kooku xool déedéet njàpp bi moom lu am sax ay lawtoo kooku moom baa booy laa koy def moom. tip kaaw. ko kooku koy arbitre balaa diib xoolal crib diib monsieur le maire bu Tëngéej mu ngi lay nuyu El Hadji Daouda Niang ah, ñu ngi koy nuyu bu wér mu ngi baax ak sama papa jooju monsieur bu Tëngéej ñu ngi koy mu ngi lay nuyu bu baax moom it ah kon baax na kon baax na élection yi ñu jàpp dat mais mais mais non Macky daal li nga naan daa aay jàmbaar la ñemewul na dëgg aayul ñemewul ndax lan nañ ko may bëre bi nañ ko may non combat bi kaa day yow yaa yor doole ji ñi amul doole naan la nañ ko may nañ ñëw non pare na pare na ah non Macky parewul waay <laughs> waxaale ñu ko non ñooñu ñooñu ñooñu dañoo bokkul bay pare amati na opposition kay amatu fi <laughs> opposition fu mu amati ci réew mi <laughs> jaajëfal leen <laughs> waa Sen TV l'officiel Moustapha Cissé day gënaa say wax dégg nga maam bay léegi looy sangoo jërëjëf Moustapha Cissé eh, jaajëfal njaayeen ki nga xam ne mooy euh, euh, Sanu Diallo euh, moom ma gëm sa bopp sa mbooro am na ñaa noonu yóbbante yu ma joxoon nag moom Sanu nee na ñu nuyu Bint Cissé ak Ndey Daba Ndiaye ñoom ñi ngi dëkk sa Daaru Xuddoos Mboro waa Sen TV l'officiel jaxeer gëyeen bi Aminata Dia Ablaye Ka ñuy nañu leen Tina Dimen Fama Ba bari ngeen lool Aliou Dia Baye Thiam ak nga xam ne moom mooy Mamadou Diédhiou jaar Diarra Diop Birane booy band Fall bari ngeen lool mënuma leen